ban compréhension ci am Ibrahima. waaw xanaa de àdduna daal moo gudd tànk te yéeme daal. àdduna daal dafa dafa të àdduna bi daal man daal chaque jour ku yebu di jàng quoi. àdduna dafa dafa gudd tànk ba tey maanaam xale bu ndaw bu juddu démb mooy moo nekk di bàcc muy sans limite. Ah, maanaam sans limite moo nekk di moo nekk di bàcc quoi. mu mu mooy bàcc bàcc yi met li da lay wane la vie est tellement ironique ba tey sans limite mooy leader au Sénégal mooy mooy bàcc li tax ma wax loolu. mooy maanaam dama ne Youssou Ndour mënul na def leneen ba mu des politique si àdduna Youssou Ndour lu mu ñàkk ci àddunaam politique ba mu ci duggee la ko ñàkk cër ba mu amoon si sénégalais bi mu duggee ci politique xañ na ko lu bëree bëri Youssou Ndour TFM mayu ko lu bëri mais daf ko xañ lu bëree bëri ci bëtu sénégalais mooy li Ngoné wax rek gis nga diggante démb ak tey fàtte xaju fi xam nga tey boo leen ne 7TV ne Maimouna Ndour Faye ak Imedia ma ma ma sekk njaay Ndiaye <laughs> Ousmane Maseka Ndiaye ñu ne doomam actionnaire la fa mais ma Masseck Ndiaye moo doon meilleur xaritu Macky Sall Macky Sall toog na wax ko donc kon télé boobu li neex Macky Sall rek bu logique dafay nangu si lay dox donc pour man lii mooy conséquence su seeni acte parce que ngoone wax na ko sànq mbir bi jarul seet fu sori robinet yi ñoom ñoo tëj. Mm. gis nga wal faj fajri tey boo demoon xoos miiru wal fajri te gën naa ne sans limite toll na foofu guddee yi ku ñëwoon xoos miiru sans limite askan bi jëflante ko ak yow loolu li muy tekki mooy. ànd ak askan bi rek moom moo wóor topp bëgg-bëgg askan bi rek moom moo wóor parce que tey Walfadjri bu ñu ko tëjoon askan bi ñoom ñooy cotiser génn seen xaalis def ko si Walfadjri taxaw leen taxaw bu rafet mais diggante démb ak tey fàtte xaju fi mais may mun Ndour Faye da daan invité les gens de du parti Pastef di leen doyadil ci plateau bi nga gis ne ñi nga fa gënoon ràññee ñi nga xam ne ñoo doon ay ministre ñi nga xam ne ministre Ismaïla major Fall xam nga ba asamaan di laal suuf gëw ma ne dina waxati. Mhm. ndax toj-toj ba mu fa waxoon goo xam ne. yaakaar naa ne moom may mun na Ndour fay jaare na fa yóbbu ko yóbbu ko frigo moom dootul gaaw a wax kon loolu ay constat du loo sos du loo inventé mais c'est des faits réels qui sont qui sont qui sont gis nañu bi ñuy door a tijji ñuy recruter ay ponkalu journaliste am carnet d'adresse comme ni nga ko comme ni nga ko waxee mais ITV ITV bi mu tijjee ba léegi da ngeen di gis ne am nañu problème mu audience pour nit ñi seetaan ko pour ñu dem fu sore sore sore sore mhm. mais loolu yëpp dafay am ay explication logique donc cest à nit ñi fa nekk dañu jëloon position assumer seen responsabilité maanaam wane seen njàppale ci guur gi di fa wax lu neex nguur di dox ci lu neex nguur ci waxtu boo xam ne askan bi ñu ngi leen di dóor askan bi ñu ngi leen di xoxatal mhm. askan bi ñu ngi leen di maltraité dama ne gis nga Sénégal ku dëgg rek wax fen askanu Sénégal dañu traversé ay moments yu méttee métti ñu yàgg leen seetaan nag mu am ñoo xam ne dañu jëloon position ànd ak Macky Sall si ay dérivam di ko défendre di défendre ay général Moussa Fall ay Antoine Félix jox dem naa ba seetaan benn journaliste bu se ne ci groupe ci groupe de presse yooyu ngeen di wax mu naan booy yi di manifester wu ñu ay terroriste lañ ça c'est grave un journaliste jël position ba pare assumer ko ñoom dañ ko assumé woon xam nga boo jëlee position nga assumer ko ëllëg si biir bu dara amee na nga assumer les conséquences et il faut que ça soit clair que ça soit ITV que ça soit 7TV c'est pas ce nouveau régime la ñoo leen indil jafe-jafe yi de. parce que il faut que communication bu baax am pour ñu bañ a jël affaire bi def ko récupération politique. Mm-hmm. bañu a wër télé yi naan ñi ngi tëj groupe de presse yi nangam ak nangam ak nangam maanaam dañuy wax naan tombe moo waral ay gaaf may boo jëlee may mun a buur fay doomu Ousmane Masseck Ndiaye la amal jafe bi nga xam ne actionnaire la woon. ci tale bi boo xam ne dañu waxante woon chaque weer da nga may jox lii si xaalis chaque weer da nga daanaka juróom-ñaari weer d'après bu dee sukkandiku nañ ci tribunal amel na ko lu ëpp cent millions yoo xam ne jox ko ko. Mhm. kon xam nga loolu yoonu président Bassirou Diomaye Faye nekku si. Mhm. yoonu premier ministre nekku si yoonu ministre de l'information nekku ci. boo demee ITV problème yi ñu am est-ce que Bassirou Diomaye Faye lañ ko amal non est-ce que président Ousmane Sonko lañ ko amal non est-ce que waa Pastef lañ ko mais c'est les conséquences de leurs actes des fois il faut avoir le courage de dire la vérité au Sénégal d'où l'importance pour ce nouveau régime ñu tenir communication yu baax a baax a baax comme ni ko le PM waxee ci bu yu mel ni amee pour ñu bañ a bluffer askan bi bañ ne waa jël nañu régime bi rek les groupes de presse yi commencé nañ tëj parce que li Ngoné wax mooy dëgg ñetti at sax sori na mais fii ak at groupe de presse yu bëri dinañu tëj kenn ñaanu ko yàlla parce que am na ñu fay liggéey di daan seen doole mais Sénégal dina am ñoo xam ne wax moo leen di yóbbu directement prison rëbës te te état bi duñu leen yóbbu duñ leen yóbbu duñ leen yóbbu prison rëbës. donc kon ñooy doxal seen bopp ba waaw donc donc kon boo taxawee si boo taxawee xoola ci kaawu Youssou Ndour rek. Youssou Ndour Youssou Ndour ñun bi ñuy nekk jeune dañ ko nawoon fu mu joué ñu dem ñëpp bëgg ko Sénégal. Youssou Ndour bi mu duggee ci politique bu doon peese ñaari kilo Youssou Ndour gën waa livre lay peser te loolu boo defoon sondage sur l'étendue du territoire def micro territoire si ngay xam ne Youssou Ndour bi mu duggee ci politique ñàkk na lu bëri Youssou Ndour bi mu eh, tijjee eh, groupe futur groupe futur futur média futur média apporté lul Youssou Ndour lu bëri mais Youssou Ndour moo ko apporté li ko dëggal Bouba Ndour nee na tele bu amee problème mu salaire Youssou Ndour lay dem mu jox ko 5 millions Youssou Ndour toog na wax si gémmiñam ne bu bàyyee way TFM fay kon Youssou nur sax man dama dem ba si biir comme dama dem ba ma ne Youssou Ndour sax âge bi mu am âge bi mu am li tax mënagul bàyyi way parce que évidemment bu bàyyee way groupe groupe de groupe de presse am mënti dund kon Youssou nur moom moo apporté le TFM mais TFM apporté lu ko dara te il n' est pas trop tard pour rectifier le tir mais ñoom nañu xam ne c' est les conséquences de leurs actes fii kenn yéenewu fi nit lu bon kenn yéenewu fi nit dem chômage kenn yéenewu fi benn télé dem en faillite hmm. mais il faut que ñu am courage wax sénégalais yi dëgg mooy ba réew mi mettee ñoom dañu jël Maimouna Ndour Faye dafa jëloon position assumé ko ba mu mat sëg nag di waxee nu ko neex en tant que journaliste am ay invité de marque am bu ñëwee di ñu xalamal leen ci télé bi ñuy waxee lu leen neex. faa dama ne ministre Ismaïla Madior Fall su fa demee dañ koy xalamal ñoom Abdou Mbow bu ñu fa dama ne sénégalais yi gumbuñu. gumbuñu dañ leen di xalamal. waa Pastef suñ fa demee ñu humilier leen. ana humilier toroxal leen. ana toroxal Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye dinaa la envoyé sa waay Pa Ousmane moo kan yow sénégalais nga sëñ bi ah, diggante démb ak tey sëñ bi fàtte dafi xajul nit ñi foog ñu am courage yu wax dëgg ci loo xam ne doo ko sos doo ko inventé mais c'est des faits kii sont là mais dañu jëloon dañu ay Mamadou Ibra Mamadou Ibra Kane il fait de la politique ay Alassane Samba Diop dañu jëloon projet Boubacar Alassane Samba Diop mais Boubacar Diallo Boubacar Diallo man ku koy xam gënoo ma ko xam Boubacar Diallo sénégalais yi mooy li dal Youssou dañ ko respecté woon wegoon ko gis nga c'est-à-dire gis nga gis nga affaire bi léegi àdduna dafa am fu mu tollu vingt-et-unième siècle lañ nekk gis nga peuple bi ñooy dicte seeni loi ñoom ñooy teg seeni loi ñaari option nga am xoolal da ngay ànd ak peuple bi Pa Ousmane da ngay ànd ak peuple bi ba peuple bi xam ne moom nga àndal mhm. mami Sénégalu léegi xool dangay ngay ànd ak peuple bi de bu ñu bu seen bët xonqee nga taxaw bu ñu nangoo seen suuf nga taxaw bu ñu leen néewalee doole nga taxaw nga taxaw ak nga taxawu askan bi ba askan bi wal fajri mais danga nga def ne c'est gratuit askanu Sénégal di cotisé di jox wal faj fajri comme ça si ngelaw li parce que dañu gis seen bopp ci télé bi mm. foofu la àdduna toll yéen sans limite li neex askan bi si ngeen di dox mm-hmm. bés boo leen dañee ci li neex askan bi kenn dootu leen seetaan c'est ça la triste réalité li neex askanu Sénégal sans limite foofu la taxaw te dañu fa mhm. parce que nous avons des des des baromètres yoo xam ne mën nañu natt yi yëf yi mais mais ku tijji télé lan nga bëgg kuy def émission loo bëgg ku la seetaan ku la xool ku lay commenter kuy jaay sa produit mais ça c'est les Sénégalais c'est pas des sorciers c' est pas des djinns mais c' est les sénégalais. c' est le peuple sénégalais c' est le peuple sénégalais. c' est le peuple sénégalais. nit ñi xoole gis nañu seen bopp sans limite. yëg nañu seen bopp ci li ngeen di def loolu war na leen wan ne li ngeen di def neex na askan bi saf na saf na askan bi. te maa ngi félicité patron boroom kër gi bu baax ndax mbaaxam ak yéene. bu mu yéene képp koo xam ne da nga koy liggéeyal man nag groupe de presse yi nekk Sénégal yëpp naan naa fa café dem naa fa xam naa la fa am. dem nga RTS ñu yenu la génn la. waaw dem naa RTS ñu ah, dàq ma ci biti. bilaa ko dàq ñu dàq ma ci biti. moom ñëpp mais mais après invité waat nañ la. mais mais maanaam sans limite. ki ko moom dama gis yéene bu mu yéenee ñi koy liggéeyal. wallaay daf ñu yéene yéene boo xam ne yow yéene boobu sas la ci yow. te lu baax bu ko nit defee. Mm. da nga nit ñi kenn moomu leen xoola sëñ nit ñi kenn moomu leen kenn jëndu leen. kenn mënu leen jënd. fii koo fi ji ngor bu dee nit mu fay la teraanga mais jërëjëf jërëjëf grand bi Yankhoba macha allah mention spéciale à vous mm-hmm. si sa yéene bi nga am si say si say employé mm-hmm. si say employé waaw nga daanalee ko nag ñi nga xam dañu am télé ak rajo mm-hmm. nañu wax ñu nekk seen ginnaaw ñu wane ko ku nekk actionnaire ba ki nekk ñu xam kan ak kan la ñu ne ko waaw xam nga xam nga ñu ne ci gouver xam nga ñu ne ci gouvernement bi ñoo doon financé ay groupe de presse yu bëree bëri mais fi mu nekk régime bi wadd na gars yi dootuñu kenn. parce que fi mu nekk problème yi tëj na jël nañ xaalis bi suur ko nëbb ko. parce que yet bi moom buy daal du fi bàyyi dara te bale gi du fi bàyyi dara. d'accord ah, robinet yi bu tëjee coow li du bëri. d'accord coow li coow li day bëri. waa Goudiry Goudiry dimbali leen waa Goudiry. d'accord dinañ ci ñëw dañuy dem ci troisième point bi am nañu problème yu bëri dee leen ci wax. Goudiry Tambacounda. d'accord ah, dañuy am na sama benn grand bien bi ñuy bàyyi xel peut-être du Euh, mooy fi ma waxee ci Dakar matin ndax Pape Alé ko moom wala Ousmane Sonko daf ko rëcc loolu kañ la woon dama koy renvoyé ci benn émission TMTC lay da ngay tàppe TMTC du mille 07 2019 ah ñu invité woon ci euh, Pape Alé Niang Pape Alé ñoo nekkoon ci plateau bi Ndeye Aram Touré moo ko doon présenté di ngeen am détails yi ci li waraloon coow li waraloon ñu invité ko su ko defee incha allah di ngeen xam li may junj noonu lan la. dafa yàgg nag depuis 2019 xam naa moo tax ñu bëri mu rëcc leen. d'accord <laughs> d'accord euh, jërëjëf alors ñu daal di ñëw ci euh, troisième et dernier euh, point bi fan yi ñu génn ñu ngi doon waxtaane kii di Khalifa sàll nan mu ngi doon xaw a jege lii di Diomaye président tey ñu daal di xëy yenn ci ay xët daal di koy.